sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu lonqari waj'alhu dakiran wa shakiran abad waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana al xikam faliha bil mustafa xayra sham asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ja waa atib ñëpp jóg leen di nuyu di leen siyaara di beral nuyu ak siyaara waa daara Hikmatul Yawmi xaaju benn ñaar ñett ñeent juróom ak mboolem banqaas yi ci aju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 sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul bu ci noppee toftal ci wax yi kenn ci ak njabootam ñu koy wax Serigne Abdoulahi mbakki borom dër bi bu ci noppee toftal ci wax yi kenn ci ay taalibeem ñu koy wax Serigne Malick Bassine si te lépp jëm ci genn fànn suñu xikmab tey nag mbokk yi ñoo ngi sàkku ku ko déglu ku nekk nga jottale ko sa mbokkum jullit ndax bu ñu sañoon ñëpp man koo jariñoo ku ko def ku nekk yàlla na lu suñu borom tabaaraka wa taala dimbale ba nga xam dara te am dara te doon dara xikma tey nag da ngeen ci dégg baat boobu lu bari ñu koy baamu muy baatub dara moo tax mat naa bàyyi xel mbokk yi ko seen muy dox ak wax ak yëngu dafa bëgg a xam dara wala mu bëgg a am dara lu muy doy xam dara ak am dara xanaa bëgg a doon dara euh, Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar mas naa dégg ay gone ñuy waxtaan seen waxtaani gone ak di fo ba mu ñëwee ba tolloog fa ñu ne daal di fëgg perma daal ne ànduñu ne fii ñu ne ko xanaa ñun mu ne leen lu ngeen fii def ñu ne ko dara mu ne te bëgg dara mbokk yi kon ku bëgg dara faw nga def dara te bala ngaa def dara faw nga xam dara doog a mën doon dara sëriñ Mor Khady Sy ak sëriñ Malick Bassine si ku tedd ki mas na leen liggéeyloo liggéey boo xam ne nii ba ñu ko liggéeyee ba noppi ba ñëw di ko jébbale si ànd ak seeni taalibe Sëriñ Tuubaa daf leen a wër ñetti yoon ne leen ndaxam mos war ngeen a sant seen borom ñu ne ko alham ñu ne alhamdulilahi rabbil alamina mu ne li tax ngeen war a sant seen boroom kat dafa fekk ne seen borom boobu moo def ci yéen ngeen bëgg dara mu yebal leen fu am dara ngeen def fa seen dara na leen wóor na da ngeen am dara sëriñ Abdullahi Mbacke borom dër bi lu mu waxoon dafa waxoon ne na ngeen nangoo jàng ndax ngeen xam dara na ngeen nangoo liggéey ndax ngeen am dara ku boole xam dara ak am dara faw nga doon dara sëriñ Malick Baye seen si dëkk bi mu mujj a sanc ñu koy wax mbaabaan murit ba mu ko sancee ànd ak lenn ci ak njabootam ak i taalibeem wéetaayu sanc ba ak jafe-jafe sanc ba tax na ñu ne ko sëriñ bi fii de dafa wéet fii de dafa sori mu ne leen dafa amagut dara foo amul dara rek ay sori waaye foo am dara du sori ñu ne ko waaye dañ fee amuti bokk mu ne da ngeen a dara ku amul dara du ami bokk waaye ku am dara ami bokk te mbokk yi koone xamoo dara mën naa am mu woyof ci moom ba mu mën koo muñ koo ne amoo dara mën naa woyof ci moom ba mu mën koo muñ waaye koo ne doo dara attan naa xeex ak yow kon yàlla na suñu borom tabaaraka taala dimbale ba teg ñu ci yoon wi maye dara te am dara ndax ñu doon dara te yoon woowu mooy liggéeyal Serigne tuubaa ndax Serigne Touba kan mooy dara Serigne Malick Bassinde daana tënk ay waxam di wax dara dara dara dara ba muy ñeent yoon bu ñu ko laajee mu ne koo seen mooy dox. day wut dara te fekk amul dara du tal dara te bu amee dara dootu am soxla ci dara daal na xam ngeen luy dara ñu ne ko déerat mu ne Sëriñ Tuubaa mooy dara kon nag yàlla na suñu borom tabaaraka wa taala xiir ci ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa ah ndax ñu am dara ba mën a doon dara ñoo ngi sant bu baax nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci jàppale gi ñu jàppale waa daaray xikmatul yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ñoo ngi gis bu baax ñi bokk ci association bi ak ñi ci bokkul nga xam ne ñoom li leen yitteel rek mooy fu ñuy dégg dara def fa seen dara ndax ñu am dara kon seen dara yooyu yi moo tax eh, daara ji doon dara du mën a agsi fii mu agsi te ñoo ngi toll ci xalaat yi lu ko yaatal kon nag loola la muy tegtale moom mooy na ngay yokk